Rewmi 24 TV dal ke ak jàmm dimanche 3 septembre sëriñ Mountakha Mbacké ginnaaw rek ba nga xamee ne di waa wi Askan Wi ñëwoon nañ fi ci Touba mbak rek mu jox leen tàndarma ngeen ñu jox Ousmane Sonko rek ngir mu dakal grève de la faim bobu nga xam mom lay amal kii di sëriñ Mountakha Mbacké daal dinay dellu ci war rek ginaaw rek ba mu yëgee ne Ousmane Sonko daal dinay dakal grève de la faim bobu mom serigne Mountakha ma ngay sante rek di sante di gërëm ak Ousmane Sonko ci amul app rek ni rafet lool rek nga Ousmane Sonko nangul na ko mom mi ba serigne sëriñ Mountakha Mbacké ya, mi ngi wax na rek depuis ba nga xamee rek ñi ñëwoon nañ ci euh, moom daal di koy yëgal Ousmane Sonko ji dund ko sant sant ko amul àpp na ko ko rek maanaam arrêté grève de mu moom moom mii di Sëriñ Mountakha Mbacké rek kon nii rek la taxawee ci Ousmane Sonko rek ginnaaw ba nga xam ne waaye askan wi ñëw ñëw nañ mu jox leen tàndal ñu dem jox ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom Sëriñ Mountakha mi ngi rafetlu rek loolee nga xam ne Ousmane Sonko arrêté na ko muy grève de la faim